waaleykum nga maa wax sa tur bi. waaw man maa ngi tudd Seynabou sant Jiba. Tida um, sa lan la. Tida suma raka la suma doomi nijaay la suma yaaya ko yar maa ko yar. léegi tey sa ñëw fii nii lan nga fiil pour tri pour Tida. Tida moom bési kontaante kese tey bés bési bi dafa mel ni Tida plane la wàccee Gambia si man dafa mel ni la fi wàccee. tiida kontaan naa si bés bési tey bii nii naa ne daf ko yelloo moo tax mu am ko tiida mi lum am rek daf ko di saaf ndax dafa soona si mbookaam yi dafa soona ba si jàmbur yi tiida taxaw na ñëpp taxaw na mbookaam yi taxaw na jàmbur yi yàlla kon xale boo xam ne la loxoom dafa set mun naa bokk ak nabi magi ndab kon tiida maa ngi koo ñaanal yàlla maa ngi koo ñaanal am gu yaram ak fan bu gudda ak place bi yal na yàlla yokka yal na ko yàlla yokka ba nit ñi yëpp yëg ko yàlla musal ko si seytaan yàlla lafal ko cat yàlla àggal ko fu mu bugg a na ko fa yàlla àggal si barke Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. léegi yow tey bi. boutique bi xanaa kontaan kese ndax bagages yi bari nañ bagages yi rafet nañ macha allah bagages yi qualité nañ kon ti ko ñaanal yàlla business bi yal na gën dem kanam. fim buga ega rek yal na fa ega rek waaw. yo so woro na am lu tuti loy wati da lan la mo neka waaw da de maa ko advice ndax business neexut neex na neexut si kaw boko tege si yoon yaa ngi ga ndax business dafa neka loo xamante ne tey daanu la elek jog way ken ñaanut lolu yalla ku neka da nga ñaan yalla suma joge pour business yalla def si barke business bi jëm si kanam kon maa ko ñaanal yalla am hol bu am hol bu lifin bim am hol bu seeda bim am yal na ko yàlla teg business am bi waaw loolu la koy ñaanal yalla business bi dem ci kanam waaw mu oytu dal, parce que business yefi business neexut mu baye helam lu rek la waaw na aduna mom ku junju doyna borom hel waye mom moy baye helam mo xam naka la mo defé ak business am bi ak customer am yi waaw parce que xam dina am customer parce que nit ko xamantene la ku buga domi adama la mota suba nit ñi ngey duga di jéena di duga di jéena nan tida tiida tiida tiida kon ci mom la wa ma ng koy ñaanal yalla nak mom yalla rek la koy nak wa waaw. jërëjëf. na nga def. jaama rek na nga def. jaama rek tur bi nak maa ngi tudd Adama Ka. Um, tiida sa lan um, suma harit la. suma xarit bu baax a baax a baax suma xarit yi démb baax tey bi nga ñëwee tey si boutique bi nga xam ne moom la tiida nekk di ibi tey lan nga fiil xanaa kontaan ak mbégte bu bëree bëree bari te di wax ne tiida lii lu ndaw la tiida dooragul sax parce que tiida am xale bu teral waajuram la bu teral yaayam la teral papaam so incha allah yàlla daf ko teral soo bu ma duggee si bitig bi dama kontaan mane ah tiida commencé ngul sax ni lu ndaw la tiida fu nga toog bi àdduna bi yëpp di ko dégga incha allah yow naka nga gisee boutique bi bitik bi am xanaa kontaan torop am duga naa fi gis fi bagage yu nice bagage yu classy yu am classe ku fi duga daal di nga guloo di nga sanse waaw yëpp nag côté si of stay saasi wi tii mm. léegi yow soo amoon kaadu bay mun a wattiidal la moo nekk ma amoon kàddu bu ma war tiida mooy tiidal gën a góorgóorlu comme ni ko olof njaay di waxee rek fas lum daw daw nga dóor ko mu gën a daw na tiida gën a góorgóorlu rek te xam ne lii beena lii am tàmbali rek la lu ko gaay di waxee bisimilahi rek la te defaagu dara tiida defaagu dara incha allah tiida dina dina raw fii nii dina raw na ay maasam sa dafa continuer di leen raw ndaxte am yaayam daf ko ñaana te sa yaay ñaanal rek dangaa jénga rek waaye doo musa daanu su tiida si kaw si kanam rek lay dem am di siis opportunité bi rek di wax ndaw yi ne teral leen seen waajur yi ñun amuñ dara lu dul suñ waajur yi te ku si teral sa waajur doo ko musa réccu lu baax rek ngay am xalal di tiida masha xale bu ndaw am nekk fii amee rakaam yi di liggéey amee bitigam bi loolu yëpp soo gisee tey mu mu toll fii ñaani waajur moo ko waral te di ko ñaax rek mu gën a góorgóorlu jërëjëf. jërëjëf. maa ngi bi. Fatou Long. gis nañ ne yaay Nébo xariti tiita bi gis nañ ne yéen a dee ànd fu nekk yooyu léegi yow lan nga maa mun a wax si de lu ma la mun a wax moom bari na suma xarit la suma rakka la suma everything la baax na yaatu na bëgg na nit ñëw dëkk moo ñu boole musuma koo xam. dañ toog ñu ñëw ka ma njaay ka boole ñu mu ñëw comme magam lu nekkam man fu moo dem man lépp li nga xam ne nii bu mu ngi koo def man la dee consult force ñu toog ñu waxtaan si ñu seet na ndax is something good li nga xam ne go for it or not so su nekkee is something good ñu ne ko ma ne ko waaw defeel ni defeel ni defeel ni te lu ma ko wax daf ko dee déega yes xale bu yaru la buga ma buga suma family buga everybody képp ki nga xamante ne xam naa ko rek nii bu xam ko waaw yow tey bi nga ñëwee tey ba nga gis boutique bi man yëg-yëg nga am xanaa kontaan kontaan bu baax a baax a baax sax parce que comme yaaga naa ko éneeli mu toog ba am li nga xamante ne moom moo ko moomal boppam te Nebo dafa bëgg a fashion so lii bettuma woon si moom bu demee ba am plan bi bañ toog ñu waxtaanee comme ne lii la bëgg a lii bettuma woon si moom parce que dafa nekk li nga xam ne daf ko yaaga bëgg si xolam yeah yow soo amoon looy mun a advice tiira lan la mu nekk xanaa di ko advice comme comme lii dafa metti toog ba nekk njiit am ñi nga xam ne dañ laa liggéeyal dafa metti torop comme di ko advice mu bàyyi xelam jàppal liggéeykatami nit ki comme su friyee si place si la dee mun a defal loo bugga so man loolu rek laa ko ñaan mu jàppante liggéeykatami su ko defee ñooñu mun a def li nga xamante ne ëllëga si biir na toog ba ay branch branch fu nekk fu nekk fu waay féetoo rek foo koof rek nga gis tey saa si witti loolu rek laa ko ñaanal jërëjëf. waaw thank you. naa def. maa ngi fi. tur bi. Kaane Touré. am Tida sa lan la. Tida sama childhood friend la. Tay bi nga ñëwee tey nga gis place bi nga xam ne moom la nekk di ibbi tey lan nga feel. kontaan ak xol bu sedd ya. rek laa si am borom foog ma am lii jombut ko léegi yow so am so amee kaddu yoo xam ne moom nga wax Tida lan nga ko wax mu gën a rek lum nekk ni bum mu ko bàyyi si kanam rek la jëm inshallah allah deglu mu kenn ñaani wajur mun na lu ne inshallah allah. Ya, jërëjëf. maa ya, ngi ok tur bi on may Fatima ñu eh, xamee ma si Fatima Terangis design. Tida Salal la. ti suma xarit la suma la jage si man because dinaa mën a wane ti dama nekk first model bo xamné mom mo ñika ñu brand bi as a model mo ñika showcase ma suma yéré man buma ready di ñew so su amé li it's obvious ñi ñep mu nañ fé mëna téw ñew ñëw ko sétan si ko xam nga ñu ñep ñu proud si mom dal si lu am né yeah yo tay naka nga gisé place place mo machallah santa allah sant bari place bi rafet na opening bi nice na yiri rafet na ñaw yi set nañ everything is perfect yow tay bi nga ñëwé nga gis place ban yëkkat nga am pour tiira kontaan kontaan na because nga gis ne jigen la ndaw la mu ngi xoso mu ngi liggé style mu ngi ibil bopam ha eh, own business mu ngi try so di mom xana kontaan rek wax di nga neex yàlla yow soo amee kaadu yow mënon na jox tiira yeen cadeau la mo nekk si de moom si fashion model si fashion <laughs> si fashion moom kenn mënu ko wax dara ana di ko yokkal ñaan rek because lii moom loo xam ne la war na ko def bu yaaga sax because ku xam tiida xam xamee nga ko sanse xamee nga ko sol bu baax sol bu baax xamee nga ko yëre am nga tiida ku am dara tiida na ñëw péronise tiida su solutee dara sax mu gis ko mu laaj ko si daf koo jël tiida façon nit boobu because soo demee si néegi tiida nga gis tiira yi réew mi am na tiira moom kenn mënut a sol yére yooyu noonu yëpp so am na yeneen yu mu dee jënd si nit yi sax pour patroniser la rek because man man man sama bopp dund man tiira first time mu ñëw ñawlu si man tiira ñawlu na lu mu eight yére soo demee suma Facebook bi di ko gis because mu ngi doon def photoshoot soo demee suma Instagram bi di nga ko gis tiira moo nekk nit moo xam ne day bëgg a dimbali nit all the time amut daf ko soxla wala soxlu ko mu patroniser la rek daf day bañ a woon xëyee kii maa ne dama ko bañ a jëndee kaa rek mu dem stock ko so lii moom kay xanaa kontaan rek wax dëgg neex yàlla thank you man fi tuur bi Hadijatu Hadijatu naka Tuure léegi yow tiida tiida salal la tiida daal suma raka laa ko xamee si ifu nii boom si moom laa ko xamee waaye tiida doon na nit ku baax yaru waaw man te saa yu nekk daf dee ñëw si salon bi dama amee salon saa yu nekk daf fa dee ñëw soo xam naa baaxaayam tey bi nga ñëwee nga gis place bi nga xam ne moom la tiida nekk di ibi tey lan nga yëg xanaa kontaan dama proud si tiida parce que tiida gis naa comme moo sibling sa mi moo rakaam yi man si loolu laa ko njëkka naw num toppatooyee comme jàppa xale toppatoo leen yàlla def muy ubbi bitik tamit macha allah bitik bangi ni nii Sira daal dafa fas jom dafa fas jom man ko ñaanal dal place bi yanna barke yanna lepp lépp lum see mu am ko inshallah allah mu toog bay ibi ay bitik bitik inshallah allah. ko amoon cadeau yi nga wax da yan cadeau la mo nek di wax dal mu gën gor góorgóorlu comme góorgóorlu la way na gëna yoko rek si tanka bu neka, bu si jóge loolu laax ko wax daal jërëjëf léegi yow tey naka nga gisee place bi place bi kontaan rek place bi ñaw yi nice nañ def na lu baax daal am na nit ku am jom daal yëfi nit ku am jom la def daal hmm. di ko ñaanal yàlla may ko mu toog ba ibi place yu bare bare bare fu ñëwoon ba gis fa photo bi branam di dem si kanam wala may ko ñaw yi ñu def ni ñu taxaw sax yëpp jeex tak loolu ko ñaanal léegi yow ya, tey soo amoon kaadu yi nga xam ne nga jox la fas jom rek fas jom ya jàpp si liggéeyam ya, bi concentrate. loolu laa ko ñaan bi Oumy Gueye am tiida sanal la suma xarit la dipitaay mi xale ñëw dëkk benn koñ tey bi nga nga gis place bi xam ne tiida moom lam nekk di ibi